gis nañu euh, comme li may faral di wax rek euh, lépp lu judd rek les mêmes têtes lañ ci gis. Mhm. les mêmes têtes ñoo fi créé woon S euh, nu mu tudd F24. Ah, <laughs> ñoo fi créé woon ñoo fi créé woon bi doon jàppal tànk kii Ousmane Sonko beneen bi j'ai j'ai j'ai j'oublie mhm. ñoo fi créé woon leneen ak leneen ak leneen ñoo fi créé waat front bi nee nañ front anti report est-ce que anti report boobu am na sens tamit du moment où report bi am na ba pare. ba pare ñu teg ci ñu teg ci pour effacer pour chasser Macky Sall mais tout juste juste une précision <laughs> Beaucoup ci front boobu. Hein? Mais non mais y a des candidats spoliés Il y a des candidats validés y a. parce qu'il y a des candidats spoliés y a des candidats validés loolu ils ont mis de l'eau dans leur bissap ils parlent <laughs> plus quand ils parlent. y a votre candidat candidat sauté Moi, voilà <laughs> donc euh, donc euh, je fais partie du front démocratique pour une pour une élection inclusive front Bobo, quelque part ñun ñun on parle de report su qu'on ne alors qu'on l'a jamais demandé mais nous ñun des arguments yi tax on a vraiment été spolié de nos parrainages ça c'est une chose mm-hmm. pour que ça soit très clair bi dialogue bi amé mm-hmm. le front démocratique était présent mm-hmm. et nous avons activement participé au dialogue parce que Sénégal dëkku dialogue la. Fatou fii laa mës a gis. dans le monde Sénégal laa mës gis li nga xam ne moo mësoo nekk suñu tradition ñu dem ba léegi di marché pour contrer ko. muy dialogue. mag ñi dañ la daan wax ne la ñaari kër bu ñu daan am jafe-jafe. dañ naan xanaa mbaraaki su guddi yi jugul soo déggee ñu wax loolu mooy nit ta daan naa mun naa joteex major. mag ñi dañuy bàyyi ba guddi ba mu sedd. ñu ñëw woon waxax ba régler problème bi. Mm-hmm. duñu wax ñëpp ne juwoone dañuy xëy comme nii àjjuma ñëpp toog max moom ñu ñëw joxante loxo dugg ci biir jàkk ci mm-hmm. les gens ne vont plus se poser la question fan la kañ lañ juboo nan lañ jubooyee yoon amatul parce que loolu moom mooy tradition au Sénégal. Mm-hmm. muy benn ñaareel ba da ngay dégg ñu naan la euh, sous l'arbre à mais yooyu yëpp bu ñu ko daan wax. wala wala penc ba wala yu mel noonu gox boo mës dem. am na foo xam ne assemblée générale bi nga xam fa la mag ñi di daje. mu nek penc ngir ñu mën ko waxtané mhm. parce que lépp lu mussa am ça c'est ça c'est toujours résolu autour d'un dialogue. tout à fait Sénégal ñu ñëw on a on a un nouveau type de Sénégalais qui refuse le dialogue. mu jaral ko mu def marche ba ay nit war ci mëna a wala ay jafé jafé di ci am mhm. je ne reconnais plus ce pays là par mhm. rapport ak li nga xam ne moom mooy li moom lañu tek sur la table ak lu mënti doon nit ki nga d' accord nga bañ a d' accord toogal nga wax ko toogal nga wax ko parce que boo ko toogul wax ko ëllëg luñ fa mënti jël ci décision mu neex la mu naqari loolu la ñuy appliqué Nous deglu une une conférence de presse après di di def genre intimidation à nos partenaires au développement mm-hmm. pendant qu'on y est mais nañu waxone Macky Sall wala assemblée Nous avons voter le budget de 2024 nous bañ ko voter mm-hmm. parce que c'est un budget qui ne va pas exécuter euh, entièrement mm-hmm. parce que fay dem du fait que la wala waratul tek ben acte bo ça va au-delà du 2 avril. Mm-hmm. mais dans ce cas-là bu exécuter le budget. Mm-hmm. na arrêté parce que lan le mais l'État c'est une continuité. Mm-hmm. et la continuité de l'État veut que le 1er avril si on contrat un xamné signer pour le Sénégal daf koy signer. le Sénégal ne va pas s'arrêter le 2. Les vais faral encore une fois. Major xam je n'ai absolument de relation avec le président Macky mosuma sax di jéem a euh, jëf lu jëm ci wàll boobu mais fépp dëgg fu mu ma fekk fa la may rey. Mhm. ce que je dis très souvent li gën a jafe ci politique moom moom laa jël def ko mu nekk mu nekk benn éthique ci man. Mhm. muy wax dëgg. Mhm. te lu gën a jafe ci politique la. ba nga xam ne tey pour ma wax ci situation yi parfois je me dis da nga koy wax sax parce que dëgg ngay jiital dañ naan danga am foofar. wala da nga koy jàppale wala des choses ce genre alors que je ne fais que dire les choses yi nga xam ne moom lañ ko war a déggee. sans pour autant être dans la politique politicienne donc ce front là je l'ai appris dans le regroupement la euh, ak ñu société civile je me pose la je me pose bien la question qui est l'arbitre

moo mën a indiwaat euh, ordre si biir réew mi mais am na si ñoo xam ne tamit dañoo jàpp ne waruñu dem waxtaani ji parce que processus bi buñ ko reprendre donc